jàppal jàmm célibataire nan takki jabar ay ah, takki leen te jigéen ñi te réglé xale jigéen yi mbaraan loolu xale jigéen yi mbaraan nan réglé yooyu baaxut nan yàlla na leen yàlla may jëkkër yàlla na leen yàlla may jëkkër Ousmane man man daal gisuma koy mbaraan ndax man mbaraanu ma bay xam koy eh, mbaraan man daal déedéet man kenn ñemewuma mbaraan man garde bi man kenn ñemewuma mbaraan garde bee tax garde bi man damaa ñaaw kenn nëbbu ma man man kenn nëbbu ma sama soxna rek ka ma nopp. sama soxna rek ka ma nopp. Ah, sama soxna rek. sama soxna rek ka ma nopp fukki at ak juróom la noom musal lafar lafar yi ndabal fay fu ne ma falax falax jëm fa dama muñal kooku ba may bëgg mbege mënuma ko am mbege loolu ñu naan mbege cercle man daal leen laa musal sama yooyu yooyu ay doxa ak yooyu man moom yaakaar naan sax du ma am jabar ndax dama ragaloon jigéen daal mos nan maa wol ab gel fii ci mbal ma ni pëccët mel ni fet barke suñ doom mel ni fet suñu kër laa taxawee keroog wool ma ko rek ndaw si maa ngi taxaw wéeru ci patlam bi nag di kolkolali tànk waye bi ndaw si ne ñu xet le le wa gaay legi la ñeme jigen xamoo lo koy wax mo lay jaxal bu ndaw ci excel lo koy wax loolu ma jaxal ki dal bu excel fu may tambule fu may daane la ma ne xaaral lii daal du ma ko fi xaar. mbay bu ñu ko indiloon temps par exemple buñ ko indi lool ben benn xale ki jigen gi dañu bëgg nga dox ko na mbay nan lay nan la ko. non man mënuma loolu. barke Serigne Touba xawmo no ne waxe jigen ay dama la bëgg ak yoy xaw ko. barke Serigne Bamba xaw ko. mënuma ko. mais branché woo quoi yow de. non waaw waaw waaw branché wu naa de <laughs> damaa branché wu ci bi ko tedd ki. <laughs>